innahu la maxfalun mahibun bikulli jadaaratin yascabu fihi kalaamun wa naxnu rubbina min aqdama kaabiran can kaabirin ala anna alsamta walinsaafa bixadrati alkibaari walkabiru kama huwa can alsheykhi radiallahu canhu huwa allahu aw man araadahu الصمت والأدب بمحضرهم خير وخير لمن هو مثلي إذ الكلام في محله يحلو أن يكون لأهله ولكن كما قال متنبي إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها yaa tura lima jadaa bihi qasirun anfahu laylatun xasna wa garra inaqadat li dikra alxabibi almustafa sallallahu alayhi wa sallama yaa laylatan bi xisaali alxibbi tazdahiru kamlaki faxran ala alazmani wadduhuri ربيع الشيخ إمام العاشقين ومن من سره قام هذا الحفل للأثر برهم كولخ كنز السر قدوتنا من شأنه في جميع الدهر معتمر هل زرت كولخ أرض الجمع إن لها فخرا على الأرض من رمل ومن مدر هل زرت كولخ وادي القدس إن لها شأنا من الحق لا يبدو لذي كدر حروف كولخ فيها الرمز كن فطنا فالقوم بالرمز لا بالخط والنظر حروف كولخ فيها الرمز كن فطنا فالقوم بالرمز لا بالخط والنظر فكافوا كوله كهف للحزين كما في سورة الكهف إيماء لذي بصر قل إنهم فدية بالله قد عرفوا وكان سيدهم شرا من البشر فالواو وتر وشأن الوتر يعجبني والحق وتر كما جاءت من الأثر والشيخ وتر بأصحاب وأبناء وتر بعلم وبالأصحاب والدرر فاللام لوح وذاك اللوح محفوظ وشيق فيضته كاللوح في العبر وكاء خوله خاء الخير والخلق من يأتها يحوي كل الأمن والوطر لله خمس من الحضارات يعرفها أهل الحقائق والعرفان والحبر كما أن المصطفى عدت لطائفه خمسا من الخمس هذا غاية الظفر مراكز الشيخ شام طيبة كوسي مدينة كولخ الأسرار والزخر ما أشبه الخمس بالخمسين إن لنا من المواهب ما لم تأتي في الزهور salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ziyaare ñëpp di wàcc ñëpp seen wàccuwaay di nuyu kawkabatan mushriqatan min al aalaam sang yu baax yu tedd yi nga xam ne ñooñu uh, tiim ci jotaay tiim ñi ci lu ne njaboot ak Moulaye Cheikh Hassan nga xam ne boo joxoñee kabiruhum alladi allamahumu sirra rek joxoñ nga ñëpp waaye asalatan ñi ngi nuyu suñ baay suñ sëriñ suñ xarit eh, ibn al akramin al ashrafina sayidi samiy al jaddi wa xabib al abi Seydi Cheikh Ibrahim ibn Mawlaay al Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne tey amul ku sa noppi xool kontaanut ci appel bi nga xam ne dégg nga ko mu dox digganteem ak Mawlaaya mu rabbil xawmi ñu ko ñaanal yàlla yàlla yàlla delloo si ko saaliman gaaniman muaafan muxaatan bi kulli aswiratin min al inaayati وإذ العناية لاحظت كعيونها نم فالمخاوف كلهن أمان Oustaz Ahmed ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la gërëm ndax abdi lam yashkur nii ida lam yashkur man ajraytu ni'matahu ala yadayhi bu ñu amee teraanga ji tey ñun ñëpp toog nokkiwaaleeg sangu yu baax yi wallahi yaa ñu ko may du lu tuuti rëy na foor na amuñ qadru ak miqdaar biñ la war a gërëmee waaye ñi ngi lay wax naaba allahu manaabana an mujaazatikum kullal ihsaan di sant yàlla bu baax nag xaj na bu la xaatir yi joxoñee boo rasoo man na laa bañ a jig loolu rek moo tax ma jël micro bi waaye liñ fi dégg Cheikh Mouhamadul Mahi yabli ko fi liñ fi dégg Oustaz Ahmad kullamtikoo ko lam yaturuk li qaa'ilin kalimatan waaye nag al idnu la budda min al imtithaali di sant yàlla bu baax ma ne ci guddi gi nga xam ne mën nañoo wax ne zikran musdawijatan ndax di fàttaliku yonent bi alayhi salaatu wassalaam di fàttaliku min xilaalihi man kaana yudakkiruka jamaalahu wa kamaalahu sallallahu alayhi wa sallama te bàyyi bu ma nee sujjóot moom ci mexraabu sangam te ba léegi si gëwut te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a sujjóot ca mexraabu péyi boromam ba baay joxoñ ko ne ar rasulu xatta al aana lam yastakmil maarifata butuuni l butuuni ba léegi yonent baa ngay dox ci jëmmi yàlla ja moom bàyyi ne la asiiru bihi lillahi jalla jalaaluhu fa ma baaluna nahnu aydan la nasiiru bihi wa sayru bihi huwa mahabbatuhu radiyallahu anhu amul benn voie buñ mën a jël ba teel a yegg fiñ jëm lu dul bëgg bàyyi Cheikh Mahi wax na ko léegi boo xoolee mën nga tënk waxam ji yëpp ne dafa ñaan yàlla ñu yàlla may bëgg bàyyi ndax mooy kiim yaaw saadati bëri na lu taxaw ci bëgg bàyyi la taxawee mais bëri na lu rës ci mbëggeel gu ñuy laam-laamee moo ko rësal yàlla yàlla di renforcer suñu mbëggeel ci moom ki ne la wa atwi li man qad xabbani kulla mahmahin ila alxadrati alalia walaw kuntu ramisa ci mbëggeel mu ne ci laay lemee espace bi te lem na yoon wi yombal ko bala ñëwoon démb daan jànkuwante ñim defar tey xaashaahum bayna ashiyatin wa duxaaha rek ñu ci seen peyu borom loolu du lu tuuti Oustaz mm, Ibrahima Mahmoud Diop Oustaz wallahi bu ma amoon tey lu foor yaa ko moom te eh, du moo ñu fi dajale waaye moo ñu fi dajale prox ndoll bu nga ubbi woon noo gënoon a sarale rek maa ngi lay ñaanal yàlla dafa ne koo xam ne dukkuñ mën a fàtte ci bile pay radiallahu anhu mos naa fàttaliku benn gàmmu tey ba alxaaj abdullah ibrahim mi ngi toog alxaaj abdullah mishri mi ngi ko ndey jooru càmmooyu oustaz xajabullaay ne jox leen baraam am na ku ne ma yow da fonk baraam ma ne la ma ne ko baraam feeg mi ngi mel ni mel rek may mel ni ma mel ci moom oustaz commencé di wax olof xaj misri ne ko kobos ne ko bil arabiyati walaw daqiqatan oustaz daal di tourné ne ko labbayka yal xaaju fa inna hadihi lugata binnisba lana qad xababaha cheikhu ibrahimu radiallahu anhu ilayna mundu an iqtaaba guraabaha wa amtalaka zimaamaha wa anfarada fi itqaaniha bayna kathirina mimman aashu maahu fi lasri alladi walla maa ngi gis Alaaji Abdoulaye mi ngi gestu di ko gestu ba guru gaa ngi wadd radiallahu anhu kon ñun du xam-xam parce que amuñ ko ba di ko wax mais dañoo bëgg ci guddi gi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ci nekk rek gëm nga ne poids bi nga ñëwee ak bi ngay delloo du benn amuñ lu dul ñaanal la yàlla yàlla yàlla dolli la bañ laa wàññi wax léegi Cheikh Mahi wax na ko feek suñ lisaan waxaale ngi waxal min mazid yàlla péeb yàlla bi ni ñu tontu naam naan naa naam wala day naa mazidun yàlla yàlla def ñu ñu nekk ñañ war a nekk ci barke Baay ci barke maam Alxaaj Abdullahi Ñas fii moom géewa poiluur yi la te man maa ngi ca wara alxijaab yi waaye daal asallaha an yatadaaraka wa yanzur ilayna nazrata atfihi wa qabulihi wa rahmatihi wa nasaluhu subhanahu wa taala an yajcalana man araadahu an nakuna xayra xalafin li xayri salafin bi jaahi cheikh radiallahu anhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu macha allah lii moo taxoon ñu taamu ci jox la jox la micro bi xam nga ñu mel ni nekk ndaw misaal lañ ci su fekkee ne ñu ngi toog ci jotaay bu mel nii di leen jox micro ñuy waxtaan bàyyi da ko daan def léegi nag pour ñu bañ a géeye léegi mu ci léegi mu jot maa ngi naan géeye sax mel ni ku ne ci timis euh, fajar léegi mu jot damay jox Cheikh Babacar Thioub su ko defee moom itam mu sànni kàddu su ko defee incha allahu ñu jox euh, zikar kàddu ñu zikar ba ca kanam jox coono ca Cheikh Kabir Cheikh kàddu xam naa day fekk balaay daaneel julli pare eh, Cheikh Baye mu ngi fi moom mooy mujj kàddu gi incha allah moom mi nga xam ne mooy taaru jotaay bi te mooy kilifa gi bismillah.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 أصحاب الفضيلة والمعالي العلماء والشيوخ أحيي كلا منكم باسمه وعينه تحية طالب محب وتحية أهل الجنة taxiyata almalaayika bal taxiyata rab alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu فإني لا أطيل بالعربية لأن شيخي وحبيبي وسيدي قد أتعب من بعده ماني نيو sangu jotaay bi ci jotaay bi nga xam ne moo tax ñun ñëpp ñu teew muy seetu ñeel bépp jullit waaye rawatina ñu bëgg xam-xam muy ku yàgg nawloo doon ko topp nga wax ne ko na ci ñu gën tax a bëgg xam-xam ñu góorgóorlu di topp jeexitam mais xam nañ ne duñ mën a jot pëndam waaye rek e, fa tashabbuhu bil kiraami karamun wa karaamatun boo niru leen ñu rek yàlla mën na laa yéegee ci ñoom tashabbahu bihim fa in lam takunu mislahum moo tax ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax di bég ci teew teew ci jotaayam wallaahi yàlla xam na ne néew na nga jox ma kàddu ma am kersa ci wax léeg-léegi mu am sax waaye rawatina tey ndax am naa xeres naa lool yëkkati sama kàddu ci kanam xadara rawatina ba muy wax li muy waxee maa ngi koy xool maa ngi samba ndaay wax yonent bi ne xool borom karamu ja borom xam-xam jaamu yàlla e, ku mel noonu nag boo toogee ci jotaayam ñu jox la nga wax di nga am kers di nga xeres lool e, waaye mënul ñakk maa ngi nuyu sama soppe Seydi Mouhamed Lamine Kouta moom yàlla ñu boole waaye du may lakk arab ci kanamam nag dafa fasaxa gi di sang yi teew yi yëpp i ci jiital suñ sëriñ bi fi jugee cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass maa ngi nuyu suñ doomu xalifa bi teew ak mboolem njabootu baay yi teew ci jotaay bi di nuyu njabootu sëriñ Dem yi teew mboolem kilifa gu teew rekk ma war koo nuyu nuyuwuma ko maa ngi ci jégalu di nuyu shérif bi teew wala shérif yi teew ndax daje naa ceeg koo xam ne mën naa am <clears throat> xamuñ ko waaw te shérif la kon maa ngi nuyu shérif yi teew di wax rek li yàlla wax te di ci am xel mu dal lool tey ba ma déggee kàddu yi. muy wal takun minkum ummatun yad'una ilal xayr yàlla neen na am kuréel goo xam ne dañu jug rek di woote jëmee ci lu baax waaye firi na laaya yooyu ndax dégg naa ko ci benn waxtaanam mu ne lu jamono yàqu-yàqu am na ñoo bokk ne yéen xam ngeen seen bopp wax ne na am kuréel goo xam ne dañuy jug di woote jëmee ci lu baax di digle lu baax di tere lu bon tey njëkkalante nag ci loolu ñuy digle di ko def waaye di moytu loolu ñuy tere sooy digle looy def ci lay gën a am jeexit ci xol yi sooy tere loo bàyyi ci lay am gën a am jeexit ci xol loolu ku gis sëriñ bi ak waxtaan yi te nga xam ne ba léegi mu ngi fi rafle wut dana dalal xel dana dalal xel ku lislaam tax a jug yàlla santoon nañu ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifa yatafaqahu fi ddin wa linziru qawmahum ida rajacu ilayhim laallahum yaxdaruun jamono bu nekk yàlla naan na am ñu yittewoo xam-xam waaye suñ ko yittewoo ba am luñ ci xam ndax xam-xam kenn du ko dajal nañ ko jàngal nit ñi waar leen fàttali leen mën naa am ñu moytu leçon boobu it mbooleem ku teew fii sa xel <clears throat> dina dal waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu ne benn borom xam-xam moo gën a tëj seytaane junney jaamukatu yàlla benn borom xam-xam moo gën a tëj seytaane junne jaamukatu yàlla waaye boo teewee ci jotaay bii danga gis borom xam-xam boobu kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci teew ci jotaay bu mel nii waaye di ñaax ñépp ci lu mel nii len lu jamono yàqu-yàqu na am kuréel goo xam ne ñoom yàlla la ñuy nekkal moo leen tax di wax moo leen tax di yëngatu moo leen tax di def ana lu tax ngay yëngatu ngir doomu aadama boo xam ne yow wóor na dañ koo bind mënalul boppam dara te bis dana ñëw mu jóge fi te mënoo yëngatu ngir yàlla mi bind asamaan ak suuf moom nguur yépp am aljana am safara kon saa su nekk war na am ñu jug ngir liggéeyal yàlla moom waaye daan na wax ne doomu aadama mën naa tooñ parce que moo la ëpp doole mu ñëw tooñ la mais yàlla moom kenn ëpp ko doole mën naa fayu benn doomu aadama mën naa tooñ koo xam ne moo ko ëpp doole sax waaye xam na ne gisut ko yàlla nag mu ngi teg bëtam ci lépp lu ñuy def doomu aadama mën naa tooñ ku ko doole di ko gis waaye xam na ne dafay parparloo yàlla nag amul parparloo dëgg rek lay at buur bu màndu la kon buur la boo xam ne kenn mënu koo rëcc ñun ñëpp nañuy déglu leson yi nga xam ne oustaz mu ñu koy jox di ñu ko jàngal ñu fas yéene jëfee ko ci suñ dund loolu moo ñu jariñ te it na am kuréel gu jub xooteel yàlla koom rawatut lool nga nekkal yàlla rek sa dund lépp boo nekkalee yàlla nag faaw iblis ak njabootam nañ loon contrer ñu nekk la yàlla dañ la ko contrer mais yaa tànn métier boobu na nga muñ jafe-jafe bi iblis yàlla fal na aadama defalul ko dara yàlla ko bind rek jox ko teraanga bind ko rek na ko iblis su jootal te iblis ak maraaka yi te iblis jaamu yàlla ay junne junne at wax nañ ne sabra boo nat ci suuf rek jaamu ci yàlla kii ñu ko bind tey mu ëpp la xam-xam kon fadlu laa yuti man inchaaw su fekkoon mbir mi ci góor góorgóorlu la nekk iblis ma doon góorlu ay ati at xanaa kay mooy raw aadama miñ bind tey mais ngeneen yàlla yàlla koy jox ku ko neex ba yàlla joxe ngeneel aadama alayhi salaam iblis daf ne ana xayrun minhu maa ko gën parce que man ci safar lañ ma bind moom ñu bind ko ci ban xaw ma safara lan la ëppee njëriñ ban ndax suuf ci lañuy bay meññal yëpp moo koy génne ci lañuy tabax ci lañuy dëkk safara nag moom laa nga bëgg a togg dara mu toggal na ko waaye boo ko laalee lakk waaye teewul rek puugare wu ne man ci safara lañ ma bind kii ci ban lañ ko bind kon maa ko gën ba pare nag di critique yàlla ne xam nga ne soo ma waxee sujootalal aadama du ma ko sujootal lu tax nga may sant ma sujootal ko ba nga ma ba ma waxee sujootal ko ma bañ ma nga maa rey ndax xam nga ne boo ma fi bàyyee damay yàq rek te àddina bu amul yàq moo gën bu am yàq bu defee yàlla tontu ko benn bari wax na wax yu bari yàlla tontu ko ne ko da nga wax ne yow sama jaam nga man may sa borom loolu nga nanguwul rek boo nangu woon ne jaam nga luñ la sant nga def ba léegi feebar boobu iblis mu ngi koy dugal ci xol yi mbooleem kuy liggéeyal yàlla dañuy wax ne ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ah kii ngëneel la bëgg seen biir rek moom lay wut bu yàlla bëggoon a fal dana fal diw wala diw wala diw déedéet fadlaa yuti ko ne shaaw ngëneel yàlla yàllaa koy jox ku ko neex xattaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax man damay wax ne gëw ma ne yàlla dana def ngëneel ci doomu aadama te nit ñi bañun ndax yonent bi kuy rafet moo la gën a la gën a taaru kuy mat jëmm moom moo la gën a mat kuy baax moo la gën a baax ku rafet jikku moo la gën a rafet jikku ba màkk doon ko tuddee amin ba ñu wàccee ci moom alquran dañoo jël ñaar ñu tekkiwul dara ne ci ñooñu la ñu waroon wàcce alquran waaye waruñ ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñooñu ak yonent bi wa qaalu lawlaa nuzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ñu ne waaye lu alquran ji lu tee yàlla wàccee ko ci walid bun mugira wala ci habib bun amr sang yooyu lu tee yàlla wàccee alquran si ñoom ngeen si jirim bi jirim abu taalib bi ci la yàlla wàccee alquran bu fekkee doomu aadama yi mën nañoo xeeb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dara ci àdduna ñu ne àdduna leen tax di liggéey yow daayi bi woote jëmee ci yàlla faw ñu ne la faw ñu ne la loolu moo la tax di def moo la tax a jóg waaye waaye na nga góorgóorlu te muñ message la bu jëm ci képp kuy wootee jëmee ci yàlla ndax yoon woowu dafa métti na nga góorgóorlu te muñ te wax dëgg dëgg neexut walakin aksarakum lil xaqi kaarihoon alxuraan nee na ñi ëpp ci yéen dañoo bañ dëgg <coughs> dëgg neexut waaye ku ci nekk rek sa mujj dina rafet ginnaaw loolu en tant ndaw loo xam ne lu mën a xew bëgg na baay te bëgg na péyu baay bi rafet sell ñoŋ xeeb naa sama bopp nag ci xoote ci mbiru bàyyi ndax lottu naa ci lool mais yàlla mën naa waxee ci làmmiñ ñu ko neex yàlla moom gisul lu mooy boppam ñun ñoo gis diw ak diw ak diw yàlla fiir na di gis leneen kibriyaa laahi mënutu nekk ak leneen moom boppam rek maa ngi wootee misaas boobu jële ndaw la waaye mboolem ndaw yi war nañoo jàng ci Jaafar jaxfaru tayyaar wutee nañ ci atam keroog ba muy dee ci xare uta am nañu ne 33 ans la amoon 33 ans mu jël drapeau l'islam gàdd ko ñu dagg loxo ba mu teeku ci beneen loxo bi ñu daggaat beneen loxo ba mu bokk drapeau bi ba dañ koy ree yàlla defal ko ñaari mbagg muy naaw ak moom ci aljana yonent nee na jaafar maa ngi ko gis ngi ànd ak malaaka yi di naaw 33 ans mu mën a daj loolu ci lislaam fi ñu bëri romb nañ at yooyu ci 33 ans ci la amee ngëneel loolu kon doon ndaw waru teey nga nga nga jublu lu baax jéem a roy mag ñi ndax ëllëg boo melu ni ñoom it yàlla mën na laa yéegee seen daraja message bi woote mooy mooy pays bi lañ nekk benn alquran mu ngi ñu doon waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu yéen ñëpp mooy leen ci buumu yàlla gi bu leen tàqaliko kon nañ nekk benn képp kuy jullit war na fexe ñëpp nekk benn rawatina taalibe Baay ndax taalibe dafay war di dëggal mbébétu sëriñam Baay daf daan mbébét ne fa hal tajmaul ayaamu qawmu muhammadin ala hadihi kay nastariixa min alxamsi ndax jamono dana dajale nit yonent bi ci njubam yonent ngir ñu noppalu ci tooñ gi ñuy tooñ islaam mën ngaa wax ne bayna an yaabil fiil abnaauhu bayna al fiela wal usdi doomi lislaam yi ñu ngi ci diggante ñeeki gaynde ñu di leen di tooñ di leen di bunduxataal jamono bu nekk lenn rek moo leen ci mën a génne moo ñu nekk benn Baye wax na ko ci waxtaanam ku koy déglu da nga ko dégg mu dara solo lu ñu leen mooy ne jullit ñi ñoo nekku benn kuréel gu nekk ne yaa nekk si sa morom dafa réer nee na loolu mooy li ñu sonal kon li ñuy noppal mooy ñu nekk benn te pour ñu nekk benn foofu ñu nangulante kuréel gu nekk nangul sa morom bañ jàpp ne sa morom dafa réer man damay wax toujours ne liñ nangul mazahib arbaa moom lañ bañalante suñ biir ba ba fiyooloo ba ba noonoo e, tey diggante Malik ak Shaafi wute wuñ lu mooy ci déggin ci xadis wala ci xadis bi wér na wala wérut waaye teewut kenn ku nekk yaa ngi nangul sa morom ci mazhab Malik nit bu jàppee laal awraam njàppam yàqu na mazhabu Abu Hanifa laal awra du yàq njàpp mais maaliki yi nangu nañ ku bokk ci Abu Hanifa jiite leen gannaaw mu jàpp laal laal awraam ci njàpp yàqu na ci ñoom mais nangu mu jiite dañ naan kii benn ñu ne xéeféer la parce que julli na ci amul njàpp wala ñu xas ko wala ñu nangam ko mais dañoo xam ne dañoo wutee ci dégg ni yàlla moo xam ki nekk ci njub ñun ñëpp dañoo taawil danaa koy wax toujours ne Shaafi dañuy wax ne bismillahi rahmaani rahim boo ko bàyyee si julli si julli yàqul Maaliki di wax ne da ko war a ba maanaam loolu wax ko dañ koo sib pourtant benn borom xam-xam ci xam-xamu Shaafi waxul ne Maaliki yi amul julli waaye ñoom ci ñoom wérut mais yow bu dee gëm nga ne wér wér na mën nga koo bàyyi dañuy jàpp ne si julli baax na. umma bi tey ci loolu la ñu wutee amul lenn lu ñu wutee lu mooy ne boo delloo da ngay gis ne ku nekk yaa ngi am cosaan ak tegtal yu wér bàyyi daan na wax ne ku am lay ci alquran ak sunna ci waxam wala jëfam nañ ko nangul ngant ëllëg yàlla ñuy atti kiñ mën a critique mooy koo xam ne waxam ci bànneexu bakkanam la ko teg tegu ko fenn tey bokk nañ li gën a jaaxal nit ñi mooy mooy dara amul fi lu mooy yàlla pourtant yonentoo ko njëkk wax ci xadis boo xam ni min asaxil ahadis ñëw na ci buxaari ñëw na ci muslim yonent bi ne laa ilaha illallah azza jundahu wa nasara abdahu wa hadama al ahdaaba waxdahu fala shay'a ba'dahu fala shay'a ba'dahu lan lay firi xam nga laagu laa naa fiilil jinsi la arab yi dañuy wax ne laa naa fiilil jinsi mooy laaguy dàq xeetu lu dugg boo waxee laa rajula fil bayti boo demee ci kër gi doo fekk góor boo ne laa shay'a ba'dahu nag waaw waxtu waa ngi waa ngi waa ngi jeex xam naa ne waxtaan bi du fi xaj kon ñu ñu daaneel li ñuy mujjee rek mooy mooy ñun doomi pé bi dañ jéem a nekk benn ñu xormaal njabootu baay gi danaa koy wax toujours ne baay dafa dénk doomam yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne alayhi salaatullahi summa salaamu wa udiu awlaadi la dayka tawassuqa baay ne maa ngi dénk sama njaboot yonent bi waaye tegaat na si ne wa ahli wa ahbaabi wa man qad taallaqa sama ñooñ ak samay soppe ak képp ku aju ci man maa ngi ko dénk yonent bi ku dégg fonk ba dénk ko yonent ne yàqu na yow te ndénkaane yonantu boo ko loree nga yonant bi yàlla ne ne lazina yuzuuna allaha wa rasulahu laanahumullahu fi dunya wal axira kon njabootu baay gi dañu xormalante buñ bañ a yàqu ndax baay daf leen dénk yonant bi maa ngi nettali balaa may tëj ñaari gént yu ma gént ci pay bi jàngoon naa ñu ne taalibe tijaani dañu am seen barsaxu bopp mais man man man man yaakaar naa ne taalibe bàyyi sax seen bër sax bopp la ñu parce que man noonu laa ko gisee àllaaxira gént naa nit jógee àllaaxira ñëw toog di ma dimbale ci benn mission mu doon def ma laaj ko ne ko yow àllaaxira nan la mel mu ne man damay gis yonent bi foofu ndax yonent dafay ziyaare ñëpp waa aljana ñëpp lépp lu muy wax maa ngi ciy teg bat ci gént ma gis yonent ni mu ko ni ñëwee foofu moom muy defal yonent muy jàpp. maa ngi gis muy defar yonentu muy jàpp mu koy nettali maa ngi koy gis mais yonentu waagul yére mu ngi sol yére yi mais ndox mi muy jàppoo tooyalul yére yi mu ne ci ndoxum aljana mais nag jàppam li romb na conc dem na ba ci kaw tuuti ma ne ko xam nga Cheikh Tidiane mu ne ma déedéet ma gis photo woon photo bi cuqatiku ma xam ne kii xëy na xamul Cheikh Tidiane ma ne ko xam nga Baye Niass mu ne mu waaw mu waaye fi ñu nekk dafa naq dee dem kenn mënu faa dem nee na balaa ñu ko ubbi rek foofu ponkal génn àdduna fi ñu nekk mu ngi tudd nu juum maa ngi gis tabax bi maa ngi gis rëy gim rëy maa mais dañ koo fermé gis mu di ci biir sax ñu ne ma foofu balaa ñu ko ubbi foofu ponkal mooy génn àddina bu rek ma géntuwaat gént boo xam ne moom pare ma woo Cheikh ko ko mu ne ma loolu mooy barke àndoo benn kilifa ci Medina génn àddina am génn àddina ma gis ko ñu jàkkaarloo ma ne ko diw mu ne waaw mu ne ko noonu àllaaxira mel parce que man damaa bëgg xam àllaaxira bi mel damaa dañ kump mu ne ma man de dama toog rek gis ñu may jullee ñu wax laa ko bar ma xam ne dee na sama xel dem ci ne yonantu wax wax gi mu wax ne ndeke ndeke ñi génn àdduna dañuy dégg mu ne ñu denc ma ma gis benn mala mu ne ñu denc ma kooku it li muy wax maa ngi koy gis. ñu denc ma ma gis benn malaaka ñëw yëkkati ma ba ci kaw ne daf may mbugal ma gis ñu am ñu toog suuf ne kii kenn waru koo mbugal mu ne ma waaye waa ñoo ma xettali maa ngi gis waaye ma ci gën a mooy sëñ maamu mu ma ñooñu ñoo ma dimbale moo tax mu mucc fii te ñun ñëpp dégg nañ gént gi si euh, euh, Oustaz Barham doon nettali defe naa sëriñ Babacar Sy moo ko géntoon bàyyi na ko sa gént gu rëy gu rëy gaa la andi bàyyi ños mbiram lu leer la lay lu huuka naxari waaye nag bu kenn bot di benn taalibe bàyyi parce que gis nga ne ñaawal na ndax lan ndax li bàyyi wax ne wa taqbalu naa habil musiina waaye waxut lan jumlatan li muxsinina bàyyi ne yàlla nga ñu nangu lépp luñ jëf waaye ñuy ñaawal ñëpp ci ñun yàlla nga leen may ngir ñuy rafetal zallat li baadihim al aqdaamu fal tasmahan minhum fa fii kaha moom mokkul ma béyti yi comme oustaz damay jéemantu waaye daf ne am na si taalibe yi ñoo xam ne seen dëggu rëcc na waaye yàlla nga leen jéggal ndax si yow lañ gërëm kon ku am sëriñ boo xam ne da ngay dem ba ñaawal mu ne yàlla jéggalal ñu ñaawal may leen sax la wax sëriñ boobu war nga ko delloo njukkal mais taalibe yooyu ñee rafetal war ñoo fexe ñuy ñaawal génn si ñaawal gi ci anam gi mu gën a rafetee ba ñoom ñëpp ñu nekk benn bis buñ nekkee benn diine ji kawe parce que bi yurfaul jawrul azim wa innahu bi faydi yanaalu diinu rafan liwaayi ci man lay yàlla yëkkatee tooñ gu màgg gi te sama diina ci lay drapeau di yëkkati ko drapeau l'islam in uridu ila islaha ma stata'tu wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa bismillah